wa san digal ak rasulullahi wa takrama li sayyidina Muhammad Mustafa alayhi salaatu wa salaam te itam yàq muy doomam ci jógee comme ni Seydi Mouhamadou Amin waxee suba ak tey Souleymane ak kilifa gi génn àddina ca Tiwaawan ñaan yàlla الأجنة وكشفنا المعروف صدق المختار ورنطور من البيت أنت أمر سيد سمع صلى الله عليه وسلم ko wàcce itam ci kilifa yi ñu fekk jaboot bi ci ne xam nañ ko ci moom tamit moom ci waaye lam yakun xayru mu'taasin Mustafa sabaru li majtihaa la kafaaha dalika sabab kon bari itam ñu amul woon dara suñ safar bu am teraanga bu tagg kon dina leen doy al Mustafa sallallahu alayhi wa bi mu bàyyee bi jëm saw ngir waajal woote ñaareelam ci Seydina Limaamu Laay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fii sa Kunta bi lu ëpp junni at dinañ ci ñëw ci tënk allah ñu nuyu imam bi ak jaraaf ak maire bi ak kilifa yi ci nekk yëpp kilifa ci ne yëpp leen di nuyu di nuyu kuréel bi ak jullit ñëpp di nuyu réew mi eh, tey ñaan yàlla lu mu ci mu bari mu néew yàlla suñu borom barkeel ko parce que nun ay ndaw lañu yuy jottali yonentam yàlla sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moo feeñoon fii bi Seydina Limaamu Mahdi Muntaqa alayhi salaatu wasalaam ay Muhammadu Rasulullah yi téem di yee salaatu woote bi bay maa li may dafa ne saa maam limaam woote na diine ba am juróom fukki at mu ne loolu dootu caaxaan waaye ba mu ko waxee léegi tegaat nañ si juróom fukki at tegati si fanweeri at tegati si juróom-ñeenti at kon defe naa ne loolu dootu jaaxaan mu ngi gën di feddala ko loolu nag dogalam yàlla la yàlla la soob mu tànn na Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wa salaam ci biir yonent yi muy Seydina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defal ka jagle bu mu deful kenn ci yonente yi moom dong nga mooy yonentam fi yàlla yónni ñaari yoon ci ñaari jamono yu bokkul ci ñaari xeet yu bokkul ci ñaari làkk yu bokkul ci ñaari melokaan yu bokkul moo fay ca moo fay fii ci saw jant loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal yàlla mooy def lu ko soob mooy yónni ku ko soob te du sa diisoo ak kenn du sa diisoo sax ak ki mu yónni loolu rek dafa soob waaye bu mu ñu yéem bu mu yéem ndax ni mu doon amee ci xeeti jëkk ya ñuy yéemu ñun itam noonu la amee ci ñun ñuy yéemu maanaam yéemu bi mooy ëppale ko sa bopp akaana linnaasi ajaban an awxaynaa la rajulin min loolu ba léegi nit ñi mënuñu koo nangu bal ajibu an jaahum mi min min rabbi kon loolu ba tey mënuñ ko nag diis na waaye loolu la yàlla dogal awa ajibtum an jaakum dikrum min rabbikum ala rajulin minkum bal ajibu an jaakum munzirun minhum bal ajibu an jaahum munzirun minhum daf leen dépassé ma tànn ci ñoom jaww yónni ko mënuñ ko nag waaye loolaa soog suñu borom moo wax ne itam wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu llaha wajtanibu taaxut yàlla dogal na ci moom nag bi mu jógee màkk yaa naawe woon màkk yenu leer yaag sunu lu li ngay jëppee lu ngor léegi mooy des bu ñu wax ku gëm mu ku bañ ñu tàggoo di wax kon fii fi la Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam boor lu ëpp junni at guddi gu jot muy wër àddina balaa ko jot teg si woon loolu la yàlla dogal kon mboote bi fii la tàmbalee leer bi fi la nekkoon waaye su mu feeñee taxaw oote ay mu daay yàlla inni rasulullahi ilaykum ñu ne du dem mu ne axakay dina dem yàlla ne dina dem nit ñi ne du dem tubaab yi taxaw ne du dem mbokk yi lay taxaw ne dem képp am pexe taxaw nu di dem xeex ak Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam ci anam gi nga ne mu nërmeel la ne kàddu gi dina def fépp dina def saw daal di wax ne bu yàlla bu àddina demoon ba des benn jant tàkkusaan genn wàll nga soog genn wàll nga des la mu ne sama borom ba xal set na gabaat yi ba ñëpp xam ne yàlla la kon kooku moo fi feeñoon oote oote bii waaye yonentam oote bu ne am na looy wax ak nit ñi looy jële ci sa borom sa borom li nit ñi ak li sa borom bañ ci nit ñi yonentam yàlla yooyu loolu lañ leen dégloo Seydina Imaam alayhi salaatu wasalaam nag bi muy defal bisaara boppam dem dafa wax ne ubashirukum bil mahdi yubaasu fi ummati ala ixtilaafi bayna annaas wa zalaati maa ngi leen di bégale di leen dokkeele maa ngi ak dikkam nee na ci sama xeet lañu koy yónni waaye lépp ci kaw tuute bu dox ci nit ñi ak ay yëngu yëngu yu bari am na doon yëngu suuf itam ndax yëngu suuf bi muy woote bari na lool nga la ñuy toxal lawal ca penku andi ko sax yamla'ul arda qistan wa adlan la waxoon kama muli'at zulman wa feese suuf njub ak maandu ni mu feese woon ak dëngate tooñ kii mu feeñe nag ba mu fi feeñee yëpp baatam ba tey jii amul kenn koo xam ne dëpp nga ko ak digle lu baax ak tere ko te dégg nga laata mu fiy jóge dafa am lu wax ndax tey réew mii ñuy nekk xam naa bu baax buggee ci waxtaan bi dinañ ne waa lii lu mu doon parce waxtoon na waxtaanoon na fi ji. waaye loo gis am na sabab bu koy indi ndax réew mii mu tëdd sallallahu alayhi wa sallam mag ñu baax ñu tëdd dafa doon réew moo xam ne ñi bon moom la soxla ngir jaxase réew mi yàq réew mi yàq doomi réew mi yàq jullit mi te it ñu am lu leen fi dalal. toogal leen fi di jiyaar ci seenu yoon muy ña nga xam ne jaayi nañu seen àllaaxira jënd ko addina bu doy wala addinay keneen lu ci mën a fii mu toll ci réew mi ku ci tiitul ci li muy doxe dootoo tiit ndax réew amul lu dul ay ndawam ay ndawam nag bu ñu doonee ndaw ñu sell xel sell ay xalaat sell ci seen diine ak seeni pas-pas réew moomu ëllëg dina tiim ñëpp waaye réew bu fekkee na ndaw ña ko war a yor ëllëg dañ leen poisonné tooke leen tooke bànneex ñu topp seen i bànneex topp seen i ba tey ku tiitul dootoo tiit gis nga ne sax réew mii fan la te saa yi ñu yeewoo ñiy woote sànq leen yàq leen ñu ngi gën di sawar ñu nga say gën a def seen doole di ca gën a def seen waxtu di ca def seen alal. ñi nga xam ne la ñoo ne ñoom day ñoo taxawal geneen wet di diine wala di yàlla suñu borom subhanahu ñu ngi gën di dellu ginnaaw di gën di noppi di gën di ragal ëpp tiit bu ma ko waxee nangam dal ma bu ma ko waxee ñu ataan taaba wala nangam wala nangam am ñu muy ragal wa yuxawifunaka billadina min dun ku jeex ci yàlla tax amatoo looy ragal alladina yuballiguna risalati illahi wa yaxshawnahu wala yaxshawna ahadan illa Allah ñay jotale oote yàlla muy Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wa salaam ak nawle yonentam la leen yàlla jëkk a tagge jëkk leen mooy dañu ko ragal moom yàlla dañu ko ragalee nag ginnaaw ragal boobu mën na fi ñoo ragal keneen bunte la boo xam ne ku ci bëgg wax ñu ni la tiital wala ku ci wax ba noppi ñu di la tiital ñu waxoon si dellu si waat jàkkaarloo ak ñoom ngir waxaat si ndax sang bi moo jàkkaarloo ak tubaab booba la gën a danger tubaab yaa ngi seen i ngànnaay lu ne booba lu kenn du ko fi wax waaye li ñu bëgg loolu la Seydina Imaam sallallahu alayhi wa ne moom lay wax. mission li ci gën a fëdd la bu mel ni ndax day def daal di nekk xadis bu leer maa taraktu baadi fitnatan adarra ala rijaali min annisa nee na ngi dem de waaye bàyyiwuma sax ma ginnaaw fitna boo xam ne moo ëpp lor ci góor ni fitna jigéen maanaam góor yi samay góori xeet amul benn fitna mu gën a dangereux ci ñoom bàmmeel ni fitna jigéen kon bu ñëwee kon ngeen a xam ne am na lu mu cay taxawee te bëgg it saa yu jamono yëngatoo yàqkat yi ak nit ñu bon ñi taxaw ngir sampa loolu taxaw di digle munkar muy ay ñaawteef di tere lu baax saa yu taxawee di wax lu ni mel war nañoo taxaw dindi lu ni mel te loolu la Seydina Imaam alayhi salaatu wasalaam def ci kanamu tubaab yi fitna nag ndax nit ñi fitna ñu ngi ko jàppee violence moom la ñu ni mooy fitna déedéet léeg fitna boobu moo gën a oyof fitna bii may wax wal fitnatu ashaddu min al-qatl wal fitnatu akbaru min al-qatl li xew ci réew mi te mu ngi gën di yokku ñi koy aar mu ngi gën di sawar ñaari fan ñett yu ne ñu xëy taxaw ci sunu kanam di tere loo xam ne moo gën a sell ci kaw suuf muy maye xale yi bëggatuñu sëy bi am diggante jullit ak moroom njaaloo lañu bëgg بأشبالكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كن يالا نينا بما بغ بما لين بغ جيغال waaye ñi nga xam ne ñoo topp seeni bànneex dañu bëgg ngeen jénga jénga bu màgg jénga bu màgg la fu mu jëmee boroom mooy sawaraw yàlla yàlla ci yàlla mosul kenn xamatul njaboot ji fi ñu toll nii fan la ñu jëm waaye solution bi ci ka daan am moo koy am moo imul ma bi maaw ma ndam yi ko yàlla defal ci loo laal bés boo laal rek Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam indi na fa maandu te boo xam ne bu waa suuf si doxaloon kon yaakaar naa ne addina àjjana lay doon ci ñëw waaye nag tey àddina neexul ci ab jullit boo xam ne gëm na yàlla gëmam yonentaam gëm àllaaxira ndax boo gisee ay neen féete kaw dëgg dëgg jullit loola metti na te Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam fii la taxaw ginnaaw bi mu wootee di jiyaar ci yàlla ñaar fukki at ak juróom benn di déglu baax di tere lu bon ragalu ca kenn ku dul suñu borom subhanahu wa taala ba diine bi egsi fu mu egsi kon amul kenn koo xam ne am nga koo jëme Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ci ay digleem ak i tereem dana li ma wax léegi rek fépp koo xam ne tollu nañ fa war nañu di dekkal wax ji gis nga ñi nga xam ne ñooy xeer maye ko teel ma waxaat ko ginnaaw daaw jéeg rek ma waxaat ko. ngeen ñi ko déggoon déggaat ngir sabab bi indi waxaat bi ñoom it ñu ñëwaat li mën a am mooy loolu mooy yàlla bëgg dinañ ci ñëw ci ay jaamam ngir këj buntu seyaatinil insi wal jinn seytaane yi doomu aadama yi ak seytaane yi jinne yi waruñoo am fu ñu jaar ba jaxase sunuy pas-pas ba yàq sunum réew riir maa ngi jub wet bu ne ñuy sosal lislaam di sosal maye bu teel maye bu teel am na waaye jébbalu bu teel bu jiitu waxtoom kenn waxu ko lu tax ñuy nëbba loolu loolu kenn waxu kenn waxul ne xale dañ koy joxe ci at yoo xam ne matagul ñu di ko joxe kenn waxul loolu diine bi ma su koo wax waaye nag xale dañ koy utal buum mu màggaale dinañ ci ñëw te loola it boo demee ci démbam di fees del ci téere kon nag fitna boobu saa yu amee ñu waxtaane ko bu boobaa am na ku ñuy xaar bu ñëwee am lu sa def si solution Naim aw Naim Al-Tarir dem naa dafa andi benn xibaar jële ci Ibn Sirin أنه ذكر ابنتكم فقال إذا كان ذلك فاجلسوا في بيوتكم حتى تسمعوا للناس بخير من أبي بكر وعمر قيل يا أبا بكر خير من أبي بكر وعمر قال كان يفضل على بعض الأنبياء عليهم السلام fitna yi ñu waxtaane ak fitna yu mën a doon waaye fitna bii ñu wax ni moo ci gën a kawe ndax nee na bàyyiwuma bu gën a garaaw ci sama góori xeet fitna bii ma wax te muy jóge ci sama jigéeni xeet te am ñoo xamee ne dañu taxaw ngir sampaloolu képp ku taxaw ngir tere ko ñu lay jéem a tiital fii kuy tiit am kon nii Seydina Limaamullaahi yonentam yàlla taxawoon jàkkaarloo tubaab yi di wax li muy wax di jëf li muy jëf tiitul yënguwul raxul nit ki noonu képp ku koy waxal war nga jàkkaarloog ñu mel noonu doo tiit doo raf doo yox-yox loolu mooy diine du neex ñu bari ndax ñooñu kenn leen laal waaye yàlla nee ne laal leen leen maa ngi seen ginnaaw wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamu bu leen doyee bu leen kenn tiital yéen a kawe ñëpp doomi jullit de jullit na yàqkat bi am fit ci wax ak jëf war naa am fit noonu ci defar ci wax ak jëf ay Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam ci jiite ba tey mu wax ne yakunu fi hadihi al umma xalifatun la yadulu alayhi Abu Bakrin wa Omar radiyallahu anhu muy xalifa bi yàlla di kuutaay yàlla di maam Mahdi alayhi salaatu wasalaam muy feeñ ci xeet bi nga xam ne Aboubacar Omar gënuñ ko dégg nga li ñu wax moom moo leen gën ndax mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo leen gën nee ci imaamul mahdi yu yuxtihi llahu azza wa jal ma aata al anbiya wa yaziduhu wa yufaddilu bal imaamul mahdi yu yàlla dina ko jox mbooleem li mu joxoon yonente yi waaye dina ko doy ba noppi tekk ci seen taw looloo wér bokk na nag ci li nga xam ne moom la ñuy wax taarif maag xataa bi sayyidina imaamullahi alayhi salaatu wasalaam sulatan alfaransiya annahu ahya sunnatan qadima baada an umita wa hiya tazwiij saxiira qaala al-imaam Ali ibn Abi Taalib fi Mahdi Muntazar annahu yuxyi maytata sunna wa yutfiu naara fitna xam na démbaam sàmmaan bi nasaaw fi mu jaaroon xam na ko lan moo doon sunnaam démba xam na ko bu ñu ko rayee bu ñëwee dina ko dundalaat dina ko dekkalaat wa hada tasriyum ilahi nassa biha fi kitabihi aziz fi qawlihi taala wallahi lam yahid fa kaana idnan min allahi taala lahu sallallahu alayhi wa sallam wa maalumun an alqawanin alwadiyya tamnau zawaji sagira ومع ذلك فلم يبالي في الله لومة لائم لأنه النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز في حقه كتمان الوحي خوفا من الناس سواء في ذلك السلطات أو غيرهم فعليه أن يبلغ ولو كلفه ذلك روحه الطاهرة الله أكبر kooku bi yonental dañu ko sas lu mel nii di am mu am ci taxawaay xeex bu takkar naa se diine xeex diine ji bëgg a taxawal lu xaraam lu suufe loo xamee ne képp ku ca nekk ëllëg ndéem tuuti di nga daje ak mbugal laa maxaal te yàlla jombale ko ay nitam muy ibaadu rahmaan wala yaznuun wa man yafal dalika yalqa azaaba daa'afu lahu al-'azaab yawmal qiyaama wa yaxlud fiihi muhaanan loolu ko tuub xam na mu koy waxee loolu mooy diine bi Seydina Imaam Ali sallallahu alayhi ak yonent dafa war a am taxawaay bu bés taxawaayam boobu waa këram dañ ko war a am ndax waa këram ci réew mi la ñu te war nañ ci am kàddu bu ñëpp a dégg bu kenn waxul te bañ a tiit loolu mooy dëgg yàlla moo ko wax kat yaa ayyuha rasul balligh maa unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al famaa ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka mina nnaas yàlla koy aaral boppam ba mu wootee ba ñu mu oo nit ak jinne ajibu daa'iya inni rasulullahi ilaykum keroog la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam tàmbali dëkkee si kàr guddi lu feeñ ak lu nëbb farlu lool ci farateeg sunna yi di dégle loolu ak képp koo xam ne aju nga ci moom ci njaboot yi ak saabaam amul góor amul jaam amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen ci loolu la sax ba ni mu fi jógee moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mu wax nag waxam di xamee dénk nañu ko ndax nee ci xutbaam wa uusikum bi xitaani awlaad wal aqd alal banaat kon maa ngi leen di ngeen xarfal xale yi ci teel ngeen maye xale yi ci teel ñoom ñaareel ñu maye la ca topp ñu xarfal يا من به الختام في الميلاد يا من به العصمة للتوفيق ko góor ko Ahmed Fall di tagg waxtaan ci li mu ko tagge teel a xarfal teel a maye du ñu gën a bëgg du ñu gën a bëgg loolu lu ñu war a fësal la àddina dégg ko ni oowee nit ñi ci ak yonentaam noonu la oowee nit ñi ci li nga xam ne moom lay digle ak li muy tere ñu di leen ko moytuloo mu fes ci kanamu ñëpp donte ña ngay waxal am na yoo xam ne bëgg ñoo déggalu ni mel waaye loolu mooy sunna si ci kaw suuf lépp ci wax ci lu baax am nañu koy bay am nañu koy bañ di dégg kon ñaar yooyu Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam daf ko digle Seydina Babacar mu teddama waxoon na ne sama bàyyi Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam man mii mooma mayoon si ñooñ dafay bañ a tudd ko mayam ndés Seydina Babacar la sama bàyyi defal na ma ko kon tàmbalee nag ci njabootam muy maye bu waxuñu jébbale bu tee na leer mu màggal ah mu wax ne sallallahu alayhi wa sallam ida al mawt yatlubukum kulla xiin wal mawt xasbul nafs nee ne dee kat mu ngi ut waxtu wu ne dee cërëb bakkan bu nekk moom la dana dee deewal ci lu leer nee ne naa ajjal fekkuma fa góor bu xaratu fekkuma fa jigéen bu amul borom te Mohamad Saxiir wax na ci taskiratul jamaa wa amarahum bi xitaani awlaad wa idxaali banaat fi nikaaxi tasbir xawfan min baxtati mawti ala al atfaal min xëyri sahaara aw ala al banaat min xëyri sow nee ne moom imaamu Ahmad Saxiir digal na ñi nga xam ne ñoo di xale yi yu góor yi nañ leen kàppal xale yi jigéen yi nañ leen maye. dugal leen ci seen jotam joyal lu tax ragal dee fekk leen bett leen ci lu dul ak laa te itam dee bett leen ci lu dul ak buum loolu nag mooy diine mu ne moo jëkk fii lakkal xale yu tudd wala lu mu ko waxee lislaam te doo làkkal xaleel wan ko yo doo teel a may bu ne ak buum ngir muy mooy tooñ ci moom mu ne loolooy mbasum diine roy leen joowal mbërëm diine mag ñi dañ leen di may ndaw ñi dañ leen di maye ak mu jox ñu def kaf ni ba fii paase rek ci janvier li ci laayeen di def bu ko ñëpp royoon seytaane jooy ay rangoñ bu ko ñëpp toppoon seytaane jooy ko waaye nag noonu la noonu la mën a def dañ jële ci Omar ibnul Xataab mu wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul maktubun fi tawrat man balagat lahu ibnatun sintay ashrata sana fa lam yuzawwijha fa asabat isman fa ismu dalika alayhi nee na képp koo xam ne jàng nañ ci tawrat koo xam ne ah mu ngi boyal doomam bàyyi ko doomu jigéen jéemu koo utal buum bàyyi ko yaru ko yiiru ko fatu ko aaru ko ba mu daanu ci bàkkaaru njaaloo bàkkaar boobu dina tegu ci aw loxo kon Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam boobu taxawaay la ci am